nga murit moom ndigal lay wéyee te ku ne xam na ni woote bi Serigne Touba moo njëkkoon na wax ni bisam bi bu jotee nan ko koy santle sama borom euh, di si ñaan yàlla di si wàcc alxuraan wàcc ay xasaayit di dem di siyaar ñu baax ñi sëriñ bi woote ko muy sëriñ mun xalifa général des mourides wax ne na ngeen màggal si waaye nangeen ngeen respecté mesures yi nga xamante ne mooy tax ka boo ñëwee doo boo ko amee doo ko wàll kenn boo ko amul doo ko fi jëlee euh, bu ñu yaakaar naa ni loolu mooy li nga xamante ni moom moom la appliqué tey ba nga xamante ni tey li nga gisee maanaam population bi màggale ko mu wuute ak ñi nga xam lañ ko doon màggale. ndox mi dafa gën a métti dafa tar askan wi sonn nañu bi ñu ko yëgee tamit wax nañ si li nga xam ne lañ si war a wax dox nañ si tamit lañ si war a dox mooy ku ne xam ne ne ndoxum Touba dañ ko war a préparer avant màggal bi ñëw. mais seet nañ ki nga ko dénk muy Serigne Mbaye Thiam amul fulla ak fayda bu mu jox Touba ba tax na bi mu fi ñëwee sax bi ñu ko laajee dafa xam ne yëgul ni sax ndox maa ngi dana manqué Touba kon koo xamante ne yow yëgu yëgu yëguloo yëguloo yëguloo ni yëguloo ni ndox ndox mi forage dañoo paan ndax defuloo visite ci benn xooloo ba xam est-ce que tey jii may wax ak yow euh, van yi tëj na wala tëjuñu ko yooyu yëpp man mu ma jàpp mooy dafa am sabotage sabotage nag mooy président la république am na

seen Cheikh Ali bi fi joge ba legi ndox mi dafa soxé kiko yor xamuko munuko ba paré sax amul compétence ba paré danaka état lay liggéeyal ndax parce que lu ci bare bare bare dafa am complexe ak faiblesse bo xamanteni dana ay réalité yi am ndax Serigne Cheikh ko xamanteni ci njabar gu nga bok comme ni ma ko faral di waxé am xam-xam amu fit mu leer na yow da nga la visite foo gis ni li war nañ ko def nga taxaw wax ni li nu ko fa def dana jaral lu nekk ndax lo ci bisu mam bi soxé mais ana ma jambar bo xam ne ko nga koo jox na li nga xam mom lañ ci wara def deug deug moy delo Serigne Cheikh Ali ñëwaat yoran ndox mi ñu mobiliser wat comme ni Touba si kanam continuer assainissement bi ñu ñu jéem a xool nan la ñu mën a def benn création pour que ñun ñu mën a jàpp ci ndoxum Touba mi pour que déwén ndox bañ fa manqué. ministre bi moom wax dëgg yàlla moom seer lañ koy may Touba mooy ministre bi nga xamante ni moo gën a ñàkk bilan ci màggalu ren gi. ndax ndox mi ni mu coupé avant màgg gi cinq jours. ba fi may wax yow ndox mi di am ay problème certaine doy mënut a am si dëkk bi kon yaakaar naa ne moom moo war moom volontaire bi mu war a jël ak matuwaay yi moom la jëlut di gërëm taalibe yi ci woote bi nga xamante ne sëriñ bi woote na ko ñu wuy si joxe ndigal ñu respecté ko tàmbalee ko ci mbooleem koo xamante ni ñëw nga dugal nga sa loxo ci màggal ñu ngi lay sant la gërëm di wax taalibe bi nga xamante sëriñ bi woote na ku ne xam na ni ñaari téeméeri junniy masque jox naa ko indi naa ko fi pour que topp ndigalu sëriñ bi ñett fan yi yëpp maa ngi doon def ay mobilisation ñaar téeméeri Sénégalais yoo xam ne dañu sol ay tiset yu weex dugg si dëkk bi di joxe vingt cinq mille masques par jour pour que loolu lépp mbooloo mi fii ñëw mën a takk masque daanaka masque yu bari yoo gis tey ñi ñu màgg si takk ko ñi ma joxoon yooyu ñoom ñoo leen ko takkal kon euh, wéye ndigal lu am solo la te xam ne bis bi da bis boo xamante ni Serigne Touba si boppam dafa am lu ko si yàlla defal li nga ko si yàlla defal nag ba nga xam ne lépp am mooy li képp koo xamante ni jàpp nga si pour sant loo ko si loolu xéwal googu ak tuyaab yàlla dikk sa kaw mooy nan góorgóorlu nag ci sax si jub jàmm yàlla aussi nangoo liggéey jàpp suñu njàmbur di xool sëriñ bi lépp loo xam mooy orientation ak bëgg-bëggam ñu mën si sukkandiku